alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu bi waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu mbokki téléspectateur u 2STV yëpp fu ñu mën a nekk ci àddina di leen ziar di leen di nuyu mbokki jullit yëpp monde islamique surtout di len ndokkeel ci xew-xew bi nga xamne ben xew-xew gënu ko mag muy euh ganek adina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nek fi tay ci pay Mawlana Cheikh Ibrahim soppe yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mag bi nga xamne kenn musta gis ku melni mom ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam léppam yonent bi la nim ko waxe moko waxal bopam neena fa kulli mashghulun بكل محمد سما لب مو إتو لب يونن تبي صلى الله عليه وسلم سما لب لا جوخ لب يونن تبي صلى الله عليه وسلم متكنا ولم أتخذ خلا سواه وما نلت مسما أود بن خريط ولا بن أندرو برو يونن تيال محمد صلى الله عليه وسلم موم لاي روي موم لاي بغ موم لاي تاغ دوما تاغ كودون موم باينا لو تاغ كودون يونن تبي صلى الله عليه وسلم دم بنا سخ تاغ كودون يونن تبي صلى الله عليه وسلم dafa jàpp ne saddum jinne la moo xam ne moom bàyyi nee na mu ngi musulu yàlla ci loolu om ti wamtidaaxun li siwaahu tayfu jinnin laa araani tàgg ku yonent bi nee na saddam jinne la moo xam ne yàlla na ko ci yàlla musal moom loolu mbëggeel mënu koo weesu waaye mbëggeel googu nampatal na ci njaboot gi jina ko ci xol yi bàyyi ko fi ba xale bi gën a tuuti Medina tey boo ko laajee ku yonent bi salaa salaam mu wax la ko xale bi gën a tuuti tey ci dëkk bi boo ko laajee ku gën a bëgg mën a yonent bi salaa salaam ñu ngi fii duñu sori Seyda sa mi doon wax léegi li mu wax doy na sëkk Cheikh Mounir ndax ñun li ñuy wax maak Oustaz Ibrahima bi tey mii lu ci bëri ci moom lañ ko dégg jàngee moo ñu yar fii ci kër gi maak Oustaz mii tey ñu ngi fu ne di ratatati di wax ñu naan gaa ñi li ñuy wax fu ñu ko déggee waaye fii lañ ko déggee ci moom kon tey bu ngeen ñëwee ci moom Eh, mu wax ba noppi daanaka sax ñun jarutoon ñu ci teg dara li mu wax mën na sëkk doy na sëkk soxna saa ngi nii eh, li baayam bëggoon rek la bëgg li baayam doon def rek ci la nekk guddeeg bëccëg bëgg yàlla lool dundam yëpp mu jox ko yàlla jox ko alxuraan jox ko jullit yi ak taalibe yi ubbi këram guddeeg bëccëg di séddale ay ñam di recevoir yi gan di saafawanteeg jaamu yàlla yi loolu moo koy dundal waaw loolu rek moo koy dundal ñun sax dañuy dem ba koy wax ne ko dee ci boole noppalu waaye moom noppalaay xamu ko coono ku ñeme coono la baat bi dee nii muy wax léegi ne xaw ma lu deyal baat bi xëy na jàng alxuraan la wala dëgg la jàng mën na koo def ndax ca daara bi na mu nekkee woon ca daara la nekkee ba léegi waaye Oustaz Ibrahima bi tey wax na léegi bi mu waxee ne xaw ma lu reyal baat rey baat bi mu ne ma coono rek rey baat bi te wax na dëgg coono rek. te pare wut a noppalu waaye nag coono mënta ñàkk kon ku sonn ci la la war noppalu ku sonn ci yàlla noppalu eh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci suñ kanam yàlla may ko wér ñu ngi ñaanal yàlla soppeem yi yëpp nga xam ne waxtu boo fi ñëwee fekk leen ci wetam ñu koy wettilam bëgg ko ngir yàlla waa gaam soxna Xadi Faal la ngi nii suñu yaay mam astoo ngi nii nga xam ne dafay bàyyi kër doomam ñew nek ak soxna ci fini fi lay fanan tek doomam mu ngi tabax am fi mu ngi am fi keur waye ngir bëgg wétti soxna si ak suñu yaay xadi sawmi ak mbokk yi yëpp euh, ci gattal dal Cheikh Mounir yeen tamit ñu ngi leen di gëreum di wakne, di wax ne yalla nañu yalla fayal bay ndax ñun bu ñuy bëgg yalla mom la bu ñuy xam yonentu mom la bu ñuy bëgg lu baax di ci sonu mom la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam kula fagul bëgg ko desalatoo ko desalatu la dara mënoo koo fay ndax koo xam ne gëm yàlla mënta mat Cheikh Munir te bëgguloo ko ba mu gënal la sa bopp ak say waajur gënal la say doom kooku xam nga ne bëgg ku la fàggul bëgg ko defal na la lépp laa yuminu ahadukum xatta yakuna habba ilay min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain noonu te ko wax te xam nga ne loolu bu dul woon gàmm yii ñun duñ àgg ci yonent bi gënal ñu suñ bopp la sa bopp loolu kilif ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim rek ku mën a tëbbu nit kon gàmmu yi dëgg-dëgg buñ ko amutoon li baax ci ñun yëpp du mën a baax réew mi li mu li ko uute léegi réew yëpp mooy gàmmu maa ngi taataar sax te waxtu wi mayewut liñ bëgg a wax yëpp waaye daal dama lay bàyyi ak oustaz Ibrahim bi tey mu mottali eh, li ci des eh, moo moom tamit wa tabaarakallah sumul xaaliqiina waaw waaw waaw ah kay Cheikh Abdoulaye rakk la joo xam ne rakk ju baax la sang la boo xam ne moom macha allah sang buy sange la waaw te doom la joo xam ne. Waj ñi ko waay ay waajuram yëpp gërëm nañ ko Seyda Nafisa mi waxtu bu nekk mu ma jotal ngërmande ci Cheikh Abdoulaye ci Muntaka waxtu bu nekk mu may jotal ay ñaan yu mu koy ñaanal fan yi rek moo ci mujj ñu ngi waxtaan ma ne ko sa doom ji de dafa tukki dégg naa te xam ne mbiri gàmmu gi rek ko yóbbu yëkkati lu joxe rek ci gàmmu gi bu sañoon kenn du fi xiif bu sañoon télé yëpp Medina la ñuy di couvrir li fi xew nang nga ko ñaanal yàlla mu ne ma bu kaar loolu fekk nga ma ci maaku oustaz Ibrahima bi tey mi waxtu bu nekk dañ koy jëw jëw bu rafet di wax ne rakk la joo xam ne bu xale yëpp meloon ni moom ah wax dëgg yàlla konoon pay bi ah dina passé fii ndax boroom xol bu rëy la fa tabaarakallaa ku bëgg maamam la ku bëgg pay maamam la ku fiir la ci pay bi Cheikh Abdoulaye ku fiir la ci pay bi itteem yëpp mooy pay bi foo ko gis muy waaxu lu yëkkati pay bi lay dox lu sagal pays bi lay dox lu wane pays bi lay dox kon ku mel noonu wax dëgg yàlla pays bi yëpp ñoo ko war a ñaanal ñu ngi ko ñaanal sax yàlla sàmm ko te sàmmal ko njabootam gu biir ak gu biti sàmmal ko euh, liggéeyam Baye FM yàlla na yàlla may leen ay tele ñu dem ba nga xam ne dinañ romb a romb de France vingt quatre yàlla mën na ko barke Baye ëpp na loolu waaw Cheikh Abdoulaye laa ñu ko ñaanal yokkute diko ñaanal muccu diko ñaanal fanu gudd diko ñaanal wër gu yaram loolu ñepp ko ko ñaanal te insha allah yalla dana ko defal euh, liñ bëgg wax ci mom yëpp du fi xaj ñu ngi gërëm yeen tamit ñi taxaw Cheikh abdullah ni ngeen ak mom Cheikh rafetna yow gis nañ ni ko taxawo ak équipe bi yëpp diko jappalé ba ngeen ak mom ba légui ba ngeen jappé ba légui bayiwu len kon yeen nit fu abdullah ag rek yeen ci ndax yeen ko dar diko ko xelal di ko jàppale yéen it yal Euh, kon ñu bàyyi la ak bu fekkee amoo beneen laaj ak oustad Ibrahima bi tey mu sànni ci ay kaddu. Nafisa mooy ku seer ba romb jamaa bu jamaa amoon mooy ku seer ba romb lépp luy mbaax su fekkoon ne xotti mbaax dana am ma ne Cheikh Nafisa mii xotti na mbaax romb na mbaax aka mën a uuf xabaana bi mu def fii ci kër gii ma fekkee ko man ci ay Ghanéen ci ay Nigérien ci mboolem xeeti Camerounais yi waa Burkina. boo ñëwee da ngay foog ne ñëpp fii lañ dëkk ba ci Guinée Bissau gi ak Guinée Conakry ñëpp fii lañ leen yaree fii lañ leen defaree fii lañ leen formé fii lañ leen uufee te billaahi doo ko xàmmee ñun doo ñu xàmmee mukk ak Cheikh Ahmed Boucar mi man rek lañ daan xaar reer te Boucar a ngi toog waaye kenn du reer te bi tey ñëwul kenn mënu ko kenn ñi ma ko lii la Cheikh Ahmed fi sa def ci ñun te gis nga loolu ma tudd muy reer loolu zahir la mais ay boo xamoon baatin ni mu ci def ak ñun am na carnet ndaw bu mu amee woon bu gàtt bu yem du bëgg ko ko wax lépp bindam cheikhul islam la baayam aka ma koo teel a te lol dara la de limay wax ni lu reey la ki wax ne inna khututi lil anami saadatun suma binde ku ci tek ba texe nga dina ga lakhira mu telma won liko bayam wonon ci néeg radiyallahu anhu koku mo sheikh Nafisa yan